asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalif général kullu murid ci kilifteefu sëriñ Abdourahim sëriñ Masamba Diop Sam Sam gi ñu leen di yëgal ziarab Daaru Sam ñu koy amal at mu jot ren ñu dama ko amal le 5 janvier 2019 ci Daaru Sam Daaru Sam gi borom Daaru Sam tëdd sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul moo ko joxoon ndigal la moom sëriñ Masamba Diop Sam borom jësi islam ja sëriñ Masamba Diop Sam da nga naan ko jàkk di yëg ni yaa ngi ni jàkk ba Cheikh Mat Bamba Xaadimu Rasuul waxoon ma sàmm jub sàmm yomal xëyaam sama loxo bi li muy ndaw ndaw naa la ci sidd yàgg si waa kër ba nga doyal Serigne ma sàmm jub sàmm borom dooru sàmm ku tebeka ku yaatu ko ku yiw ko ka nga xam ne Serigne Touba rek moo ko ñor moom la ñu amalaat ab ziar samedi 5 janvier 2019 ñu ci wóor ak ñëpp wóolare yi am di jàmm yi dëkkandoo ak taalibe yi bu ñu yëggee ci bés ba ñu boo xam ne lépp dana koy teg ci njàngalem Serigne Touba Cheikh Mat Bamba fan ci weeru janvier 2019 danañ fa amal aw waxtaan wu am solo solo ki kat na ma waxtaane mooy Serigne Mbacke Abdourahmane Mbacke ak Serigne Gana Messere moom Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ci teewaayu mboolem jullit yeeg taalibe yi rawatina ñi dëkk Daaru Saam ak li ko wër bu ñu yeggee ca bés ba di samedi 5 janvier 2019 bu ñu xëyee dana fa amal njàngum alquran ak xasida ci njiital Serigne Bassirou Diop alquran moom Serigne Modou Diop Massamba ak mbooleem daare alquran yeeg daare alquran ye fekk baax Daaru Saam amal fa itam njàngum Ibrahim Diop muy xalifab Serigne Massamba Diop Sam ak taalibe yi ci teewaayu itam Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khadar Mbacke nga xam ne léppam Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah bu nëppee ci cérémonie officielle bi moom Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khadar Mbacke mu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul mooy soññuwaat mbooloo mi ñaanal leen ba déwén ak jàmm mangook mu di ziarab Daaru Sam ñu na ma ko amal ñeenti fan ci weeru janvier atum 2019 ñu ci woon ak ñëpp bàyyiwunu kenn di ñaan képp ku ci yàlla nga ca dajeek ngërëmal Serigne Massamba Diop Sam